je peux même dire que nit ñi génn nañ ak jàmm ak salaam daal nit ñi génn nañ ñëpp ñëw nañu ñi ñaa ngi voté daal ci jàmm ak salaam nit ñi génn nañ boo xoolee la xam ne génn nañ. Euh, man maa ngi tudd Khady Thiam dëkk Daara Khoudoss nekk responsable fii fas yéene nag jàppale sama candidat fas yéene mu jël fii premier tour. Ah, ci centre waaw tey moom wax dëgg yàlla xel dal na ci ndax li tax xel dal ci mooy ñun depuis huit ba léegi ñoo ngi fi taxaw xam naa ñu ngi contrôler gars yi ñu ngi contrôler ñi ne ci biti ci wetu euh, marché bi pour di corrompre nit ñi ak yooyu mais suñu borom yàlla dimbali nañu ci ndax takk der yi tas nañ leen fii. kenn ñaar sax bu ñu taxawee di wax bala noo àggale sax ñëw nañ tas leen foofu kon loolu sant yàlla la fi ne daal liy fula ji ak fayda ji mooy jël sa carte waaxu dem ba ci urne yi nga dugal sa carte woteel nu ñun ñi nga xamante si ñun ñoo fi nekk mu woteel nu kin fi bëgg a jëlee ñu jëlee ko fi soobee yàlla yonent bi sëñ Touba te xam naa ni Touba moom troisième lan yaakaar ni moom dafay taxaw waaye fii fi am dara. ci plan organisation wala ci ñi nga xam ne ci élection nga xam ne ko waaw euh, ñi mobilisé nii ci Touba nga xamee pour wat bi waaw pour wat bi moom ñiy mobilisé wu moom wax dëgg yàlla kaar yi mi ngi ñëw. nit ñeet ñi ngi ñëw ñun ñi nga xam ne ñun ñoo mobilisé wu fii ci Touba ku ci demee ni sëñ Fallou ak ku ci demee ni ñun ñun fas nañ yéene moom fi nu taxaw fi lañ fas yéene taxaw tey dara duñu changé ci li nu nekk gisuñu nag kenn ku ñu yàqal parce que fii ñun depuis huit heures ba léegi ñoo fi mais gisaguñ benn mm, am solo lu fi am nañ oto yoo xam ne dañ leen a teg fii nga xamante ni si maanaam koo xam ne changé na sa lieu de wat wala ñu changé sa bureau de wat oto yi ñoo lay jël yóbbu la foofu nga wate nga si waat amaguñ benn problème daal moom te gratuit la duñ ci fay dara ah fii daal moom na la na na seen xel dal maa ngi lancé appel di sant président bu baax a baax di ko wax ni kon ñun ñoo ngi ci terrain bi ci terrain bi bu a baax di liggéey ah la waxit ni la sama président Boubacar maa ngi koy sant sant bu baakha a baax ndax jàppale na ma ci côté yu nek mom may doole ba waral tay ji ma taxaw fi mané président xana ñi santat yalla rek di wax jërëjëf sëñ Touba ci li nga xamné ñun ñëpp ñing ko doon xaar suñu borom dimbalé ñu ba ñu ci ak jamm dugg ci ci bismillahi rahim di ñaan yalla ñu genn ci ak alamin vraiment nit ñi genn naan massivement voter instant bi les conditions sont réunies vraiment amul benn perturbation tout est ok nit ñaa ngi dugg tranquillement di voter tranquillement di génn tranquillement force de l'ordre yi andiwuñ benn débordement nit ñi aussi vraiment accepté nañ conditions yi ñu leen tek amuñu benn pression ci li ngay xam ne moom la ñuy wote et dans les bureaux aussi les bulletins sont la amul benn bulletin boo xam constaté nañ ko ci manquement Euh, parmi les représentants du bureau aussi gis ñu gun benn représentant boo nga xamné peu importe euh, bon absence yi am ak retard yi mais gisaguñu benn représentant boo nga xamné ne waxagun nañu constaté na benn débordement dans les bureaux ce qui veut dire que globalement à l'heure où je te parle moom donc rien à signaler quoi. Sur le plan sécuritaire, est-ce que vous êtes satisfait? bon sur le plan sécuritaire moom daanaka jërul woon sax ñu ñuy mobiliser ay nit man jàpp naa ne ñun waa Touba on est assez mature pour sécuriser nos propres personnes parce que kenn ku ci nekk dund nga euh, ba toll ni nga toll amoo benn problème kon jàpp naa ne andil ñu ay takk der sax jërutu ko woon ñun ñëpp kenn ku ci nekk mën ngaa sécuriser sa bopp ndax ay doomu ndey lan ay doomu bàyyi ay doomu bàjjen ay mag ak xanaa continuer sur cette lancée rek di wax ne tamit ñun ñu ngi ci beneen position position bi ñu nekk c'est pas la peine ñu koy dévaler parce que ñu ci organe de presse mais di wax rek ne kenn ku ci nekk fi nga féete yaa ko xam nga def ci li la war waaye nag bu kenn andi jeexi jaaxa bu kenn andi ay bu kenn andi coow su ngoon jotee bu ñu defee dépouillement yi tranquillement ku suñu borom jox victoire ñu jaanal ko mu jëkk ko mu jëkk Sénégal

sama xol dafa sedd murit yëpp am gëm-gëm sëñ Mbàkke sëriñ tay li ma yëg foor na ci man ndax man dafa woon naa ni Touba cofeel gi ñu amoon ci président ab Ablaye Wade sëriñ Touba mënu koo solaat ci beneen xol waaye tey xolu Touba yëpp Idrissa Seck moo ci nekk barke sëriñ ma gis nit ñi maanaam bureau de vote yi sax boo ci duggee da gis nit ñi yéene ji ñu am ba bureau yi sax dañ ciy dañ ciy gis euh, euh, fii su Idrissa Seck yi duñ buñ koy dugal sax yéene lañ koy dugale sëñ Mbacke daal li ma gis mooy. ndax dëgg dëgg wax dëgg yàlla tey am naa contentement ndax gis naa sécurité bi doy na sëkk volonté bi doy na sëkk teyit nag waa Touba tey dañoo jug xam ne tey dañuy nangu nangu liñu mom drapeau Touba tay dañ ko bëgg jëlal suñu bop ci suñu loxo wané na Serigne Touba mo fi né moy tànn ku ko neex duggal ko ci biir xolu wa Touba yi wa Touba amuñu droit bëgg Serigne Touba moy bëgg ki mu bëgg sol ko ci seen biir xol yi ñu and ak mom jox ko jox ko drapeau Sénégal waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Abdou mbake sëriñ bi tey waaw damaa ñëwoon ngir di vote si vote naa ba pare euh, di ñaan yàlla sunu borom mu def tawféex ak ay xewal ba nga xam ne lépp dana sotti ci jàmm. li ñu jot a gis nag te gis ko ci dëkk bépp mooy li ñu doon ragal rek di ko tit euh, yaatu na fi lool mooy ay wàllu sabotage.

te mënuñoo voté li ko def mooy dafa bari lool lool bu sottee ndax ba ay midi ay santen gis nañ ko ci. loolu mel na loolu ci laa jëm si mooy ñëw bay voté si ñu ne la waruloo voté fii dañ laa transféré te ñi ëpp ci ñiñ transféré fii dañ leen a génn dëkk bi Thiès lañ leen yóbbu ay Kédougou ay Cilmaxa ak yeneen yeneen i barab. nga xam ne wér na leen ni ñoom duñ voté ak it ndax duñ voté sax seen place ñoom est-ce que duñ doxe gannaaw voté seen place parce que ñoo ko def exprès transféré leen ay milliers de millier de personnes te ñoo ko tey. ñu ngi koy wutal ay lay nag di jël ay yennati kilifa yoo xam ne ay échantillon la di wane ne loolu xëy na erreur la waaye dafa ruslu ci nekk ci am réew yore ko te organiser élection yu baax yu jaar yoon képp mënoo ko. xam nga lii euh, dañuy wax sàcc ci élection waaye lii du sàcc moom fuqati la jafi maatay la bu fekkee ne nag dëkk bi am na yoon te réew mi am na yoon te te te te mbir yi war a mën a tege ci yoon normalement ñoo ñu war nañoo xool seen cas nit ku bindu ñu jox la sa carte d'identité ne la bureau de vote sàngam ngay voté nga toog ba bis ba nga dem ba yegg ñu ne la nekkuloo ci list bi yaa ngi wotee ji génne la dëkk bi lu mat ay cent kilomètres wala ay deux cent kilomètres ci biir Sénégal loolu lu doy waar te ay milliers de personnes ragal nañ ne fii ci Touba dana fi am te ñoo ko tey ñoo ko def exprès loolu daal mooy manquement bi te lu doy waar la lu ñaaw la ñu ngi koy déplorer. bi ni ñu ko organisé crois que liñ tàmm mën a gis ak liñ gis tey xaw na am na ay amélioration amélioration yu bëree bëri gis nañu nit ñi bureau yu commencé nañ à temps nit ñi ñu ngi voté ci daal di ñaan rek ni mu commencé mu mu mu jeexee noonu. ban message ngay jox waaw ñooñu loolu mobilisation bi nga xam ne population yi mobilisé woon nañ ko loolu dañ koy saluer ñëw exprimer wu librement. kenn ku nekk soo paree nag nga dem dellu sa kër dem toog dal ñu xaar résultat yi mm, li ci topp rek mooy xanaa soññu ñi nga xam ne peut-être camp bi nga xam ne fi laa féete ñi nga xam ne euh, le candidat Macky Sall mooy suñu candidat ñu niñ commencé woon campagne bi continuer ko ba tey ji ñu àggale noonu soññu gën dem génn militants yi soññu leen ñu dem vote ji euh, pour que bu ngoonee euh, bu ñu dépuyee ju gis ne liggéey bi ñu doon liggéey